ñu ngi ci téere bi di zaadul maad fi hadyi xayril ibaad mu ngi doon jàngale ne yàlla mooy ki nga xam ne moo jagoo bind waaye mooy tànn ku ko neex ci ñam bind mu ne woon xaala woon allahu yàlla taala na wa rabbuka sa borom yow muhammad salallahu alayhi mu sallam yaxluqu dana bind maa yashaa lu ko neex wa yaxtaaru muy tànn lu ko neex waxoon naa nag ci dars bi weesu ne tànn bi yàlla mooy li gën bu kenn dingat yow yow nana doy rek nga bokk ci ñuy liggéeyal yàlla loolu rek nana doy alxasas balaa yooyu ñëw nga ne ko ban tànn la namu fii mu ne walay sa nekkul almuraadu lañ na mu haahuna fii bil ixtiyaari ci tànn gi al iradata bëgg-bëgg allati gi nga xam ne yushiru yushiru dana junj ilayha jëm si moom al mutakallimoona ñuy wax ci xam-xamu kalaam xam-xam boo xam ni dañuy andi ay lay dagg sante nangam nangam na filoo ni nekkul lañ namm bi àndoon yàlla alfaayu moo jëf almuxtaaru ka coobarew weextaaru fii firiwut coobarew dañu wax ne allahu alfaayu almuxtaar maanaam mooy def mooy ki nga xam ne moo coobarew maanaam li mu bëgg rek mu am fii nag firiwut loolu fii weextaaru mooy gannaaw mu bindee ba pare mooy tànn ñu ko neex yëkkati leen daraja yëkkati leen maqaama yëkkati leen yëkkati leen boobu moom subhaanahu wa taala kazalika comme noonu la mooy kii def mooy ki coobarewu walakin waaye nag lay sa nekkul al muraad lañ namu bil ixtiyaari ci tànn haawunaa fii haazal maana bi li maana fii namuñ ci coobarewu wa yaxtaaru namuñ ci wayu riit mooy coobarewu maanaam mooy def lu ko neex wa yaxtaaru fii li mu ci nam mooy mooy tànn وهذا اختيار bi la tànn daaxilu aji dugg la fii xawli ci waxam yaxluqu dana bind maa yashaa lu ko neex maanaam bu fekkee iraada nga bëgg a wax ba mu ne war a bugg sa borom yaxluqu dana bind maa yashaa lu ko neex kay wa yaxtaaru duggaal na ci biir kon firiwul iraada nammel parce que ba mu ne yàlla dana bind lu ko neex rek ci la nammel dugg wal qasas fay noonu nag moom laa yaxluqu du bind illaa bi ixtiyaarihi lu mooy ci lu mooy ci coobare bu hmm. fekkee da ngaa firee weextaaru coobare hmm. wa daaqalu aji dugg moom coobare wu fi xawli ci waxam taala kaw ne maa yashaa lu ko neex hmm. kon daf laa bëggoon a weextaaru wa rabbuka yaxluqu maa yashaa weextaaru weextaaru firiwul ne mooy mooy xool li mu bëgg mu def ko déedéet ndax bam ne yàlla dana bind lu ko neex rek dañ xam ne kon lu ko neex mooy am lu ko neexu daw fay ma machiata naka coobare wu hiya moom al ixtiyaaru mooy tànn maanaam mooy nammeel boo ne wa yaxtaaru li ñu ci nam mooy nammel machiatu ak nammel benn la li bëgg a wax mooy wa rabbuka yaxluqu maa yashaa yàlla dana ko neex wa yaxtaaru moo doo ko firee dana coobare wu def lu ko neex parce que ba dana bind lu ko neex rek la wa yaxtaaru duggaale way namal muraad naka lañ namm bil ixtiyaar ci mooy tànn wa istifaaw ak segg ñaare benn ak segg yàlla bu bindee ba pare lu ko neex rek lay bind nag waaye si bundee ba pare moo jël kii def ko yonant jël kii def ko wëlliyu jël kii def ko buur jël kii def ko borom xam-xam jël kii def ko sëriñ jël kii def ko kilifa jël kii def ko commerçant jël kii def ko borom alal jël kii def ko baykat jël kii def ko garde corps jël kii def ko yalwaankat jël kii def ko bandi jël kii def ko tànn ku ko ku ko neex ci ma xaama gu la neex wala waral doomu aadama yi doomu aadama ko yàlla mayee nga ne lu mu gis ci nit rek da koy nangul ndax nangu nga ne li mooy tekki nangul yàlla doomu adama yi ñoom ñëpp dañuy judd duñ dara wala mbindeef yàlla yi loo gis dafa judd du dara bu demee bañ na ko kilifa ah kooku ixtiyaaru laahi dugg na ko ixtiyaaru dugg na ba yàlla bindee ñëpp dafa tànn waajooju seppi ko ci biir nit ñi def ko muy kilifa boo ko nangulee nangu nga tànn yàlla boo ko bañalee bañ nga tànn yàlla buñ ne wëlliyi la kooku tànn ak yàlla la buñ ne yàlla la buñ ne borom xam-xam la tànn ak yàlla la buñ ne borom alal la tànn yàlla la bu dee mooy chef de quartier bi tànn ak yàlla la bu de mooy imam tànn yàlla la kon wa rabbuka ko maa yashaa wa yaxtaaru yàlla dara bind lu ko neex ba pare nag séddine garaat yi ku yàlla jox garaat nangul ko ko ndax bokk bañee yàlla nga ko bañal mm-hmm. ndax moom tànn ko judduwaale ko yàllaa ko def ci mm-hmm. kon mm-hmm. ixtiyaar fii mooy yàlla dana seeg bi ñu ko neex jox leen cër foofu ak tànn la baadal xalqi gannaaw mbindee gannaaw bindee ba pare dafay seeg bi ñu ko neex jox leen cër moo tax borom borom basiratu arif billahi ku xam yàlla dëgg-dëgg mm-hmm. lu mu gis rek mm-hmm. may gu mu gis rek moom looloo ko neex ma ndax day xam ne ne wayaxtaaru yàlla gi moo dugg foofu wala ixtiyaaru tànn ga la am gu matale kooku mooy coobare mm-hmm. ixtiyaarun tànn la qabla xalq njëkk mbindee maanaam yàlla bëgg xamal kooku moom avant mbindee fi la avant mbindee fi la bëgg xamal lu ko neex waaye ba mu bindee mbindee fi ba pare dafa yëkkatil nii daraja wàcceel nii daraja waxoon naa nag ne ñoom yëkkatil daraja yëkkatiwul leen daraja pour ñu fuugarewu daf leen yëkkatil daraja pour xool lan la ñuy def wa rafaa baadakum fawqa baadin darajatin li yabluwakum fii ma ataakum yàlla moo yëkkatil ñenn ñi daraja ci kaw ñenn ñi ndax boo ëppee nit daraja da nga koy dimbalee ma da nga ko koy wan loolu la yàlla bëgg a xool man shakara rek fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim ku sant boppam waaye ku weddi yàlla soxlawul la kon doole yërmande lay jariñ am am dimbale lay jariñ xam-xam xamle ak jëfee lay jariñ mën man jàppale lay jariñ fexe ba nit ñi mën comme yow waaye fuugarewu kooku mbiram àdduna la maanaam mbiram jaahi la foofu tànn balaa yàlla di bind maanaam cox nammeel ak yàlla am moom moo gën a masale waas bokk moo jiitu yàlla dafa nam mu amal lépp te ba moom boobu lépp la nam mu amal moo njëkk lépp ba mu amalee nag dafa yëkkatil ñenn ñi daraja ci kaw ñenn ñi waxaasa tànn gii nag gannaaw ba mu bindee ak xasu moo gën a jegoo boobu moom mut axirul moo mucc foofu loolu ixtiyaarum tànn la menel xalqi ci mbindee fi dafa bind fa tànn ñu ko neex ولول بنيك من اختيار تان للخلق غير امل من ده كون اختيار بوكو تان جيم تان امل من ده بكوك موي اراده نملم تشوبرم تان جيم تان نين سي من ده نك كوك موي وي في واسه القولين دي غنا ويرت نياري وخي ان الوقفه نتحو التام غمت على قولي تي ويختار لا نتنو dégg nga mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. am na wax fataa am na taxaw gu mat ala xawli ci waxam mu ngi ci waxam ne weextaaru na waaye bu ko yaxluqu maa yashaa wa yaxtaaru lu mu si topp maa kaana lahumul xiyaratu wa yaxtaaru moom foofu mooy taxawukaay ba wa rabbuka yaxluqu maa yashaa wa yaxtaaru yàlla dana bind lu ko neex tànn ñu ko neex ci biir ñu bind foofu foofu mooy taxawukaay ba foofu la jumla bi matee bu yekkoon da nekk maakaan la mu xéeratu nafiyan di dàq. Hmm. waaw ñu ne wax waxtaaru maakaan la mu jël maa gi def ko ma foolam waxtaaru ko defee firi ma lëj waaye dëgg-dëgg booy jàng fa nga war a taxaw mooy waxtaaru wa rabbuka yaxluqu maa yashaa wa yaxtaaru maakaan hmm. la mu xéeratu ko nafiyan dàq la hmm. maanaam yéen mbindee fi amu leen lenn lu ngeen tànn gannaaw bu yàlla tànn du nit nit mooy yëkkatil nit daraja moo tax ku yaakaar ne mbir yi ci mbindee fi la yaa ngi nax sa bopp laaj yéeme nii laaj yoo xam ne boo ko seetloo jàngat ko daa la jàngal lu bëri makkaana luumul xiira nit ñi tànn du nit moom def président de du nit moo def kilifa du nit moo def borom xam-xam du nit moo la def wëlli yàlla yàlla la koy def yàlla nag lu def lu ko fu ko neex la koy jaarale waaye lépp moom moo ko def moo tax mbindeef yi mm-hmm. bëri nañ mm-hmm. jëf yi am na yu yéeme yu rafet ba jéggi dayoo mm-hmm. organisé wu lool tegu ci xel ak xam-xam bu set waaye yëpp du ñoom yàlla rek la suñu yaram yi xott rek la dafa mel ni mike mike boroom xel mën na xajal ay mike def ci lu yéeme organisation bu rafet nga gis mike yi nga gis ñoom ñooy def ñooy wax ñooy jooy ñooy am ñooy ñàkk yow ñoom nga seetaan ñuy wax di tabax ba gis man ñoo tabax sa dëkk bu rafet a rafet mhm. def affaire yu yéeme mhm. fekk du ñoom boroom xel ma nekk seen gannaaw mooy def tasaruf si ñoom mhm. ku jug moo la yëkkati ku wàcc moo la yëkkati waaw maam mi kii xott kese la bu waajur bàyyee rek da ngay gis ne tekk la ñuy def adduna yëpp noonu la lépp yàllaa koy dox doxal sa wax ji yàlla daree tuddloo sa nga door tudd an na laaw la si an taqa kulla yàlla mi tuddloo lépp moo ñu tuddloo bu ko defee kon maa kaana kooku nafsi la la ne mbindeef yi ñoom mënuñoo tànn dara mbindeef yi mënuñoo tànn ay lay sa nekkul haadal ixtiyaaru bi la tànn ilayhim jëm ci mbindeef yi bal li fi nekk ilal xaaliq jëm na ci aji bind ji wax doo moom dong yàlla rek mooy tànn teg ko fu ko neex mm-hmm. waaye mbindeef du ñoom ñooy tànn loolu mooy wax ji dëgg-dëgg fa kama annahu comme ni nga xamee ne yàlla hoo moom al munfaridu mooy aji wéet bil xalq ci mbind foo moom al munfaridu mooy aji wéet bil ixtiyaari ci tànn minhu ci mbindeef yi moom rek mooy bind ku ko neex waaye daraja moom moo ko yëkkati ku tànneef ci moom la nekk ci moom la nekk kon yàlla na yàlla tànn lii nag kum dëggu ci yow بما من وكيل كيلا فليس لكل احد يمكن ان يخلق مبن ولا ان يختار ولا ان يتم سواه كدل يالا كدل يالا من بن واي من تان كين جوخ دار لو يا ام يالا فإنكم يا رسول سبحانه وتعالى مثلاً أعلم موغنا قم بمواقع الاختيار كبر بتاني yàlla moo gën a xam ñam war a tànn wa maxaali ribaahu ak barabi ngër mandem ah tànn ki nag bu yaakaar ne kii mais yàlla dafay bind nit moo ñaale ko loo xam ne nii lam bëgg ci waajooju jooju fa defee dina ko mën a attan dina ko yelloo daal yàlla du jël ab kàccoor moo ci moom ak nubuwatu ndax nubu nubuwatu kàccoo duñ benn mm-hmm. kon yàlla bu bindee nit ci façon bind boo xam ni daanaka waa ji matière am normal mm-hmm. du ci def nubuwatu mm-hmm. waaye dafay bind nit <coughs> bindee ko bind boo xam ne ni lam ko nammal xel na ci moom mu doog ko ci kon bind ko bind buy boo xam ne dana tax mu yelloo may gi moo njëkk su paree mu door a def may googu ci moom mhm. moo tax mu yàlla moo gën a xam barab bi jëm war a tànn mhm. ak fa mu war a def ngërmandeem ba mhm. ma ak la nga xam ne yasluhu dana yéwén li lixtiyaar yi ngir tànn même maa ci nga xam ne laa yasluhu du yéwén la mu yàlla war tànn ak ñi waru tànn yàllaa ko gën a xam wa xeyruhu ku dul yàlla laa yushariku du bokkaale yàlla fii zaalika ci loolu bi wajin ci benn anam ku dul yàlla yoonam nekku yàlla mooy xool ñi muy tànn ak ñi du tànn wa zahaba dem na بعض من ينس نيخم لا تحقيق دي رك دقل هندو دي نيك فونيوم ولا تحصيل أمون درجة خم خم إلا أن ما نماغ في قولي تي وخي الله تعالى كون ما كان لهم الخيرة أم وخونا وربك يخلق ما شاء ويختار فنورته ما كان لهم الخيرة وما يكن تنف يالا ركي تن نفهم نغني وخنا ماغي موصولة ماو موصولة أي الذي ليش waaye moom mafuulu wa yaxtaaru mafuulam wa yaxtaaru la mafuul ak kii nag ñun naxaw ko xam mm-hmm. nekk nii li muy wax ni lépp ci wàllu naxu la mm-hmm. ñu ne maa ngi mafuul la mm-hmm. ay wa rabbuka sa borom yaxluqu dana bind maa shaa lu ko neex wa yaxtaaru dana tànn alladi li nga xam ne lawum ñeel na alxeeratu tànn luy la mu ne waa daal yi baatilu neen la min wujuhin ci ay anam hmm? maanaam doo bëgg wax ne yàlla mooy bind lu ko neex waaye tànn li nga xam ne xëy moom la nit ñi bëgg hmm. loolu loolu lay fi mooy lii neen la ci anam ahaduma benn bi mooy an na sillata na sillaak mawsul ga yéen a isin jamono boobu taxlu day wéet mi ne naa idi ci ayit hmm. xam nga mawsul ismu mawsul googu dafa am silla mooy jumla ba ci jokk ak ayit mooy demir bu dellu ci mawsul ba tey dëppoog moom hmm. léegi xoolal wa yaxtaa xam ne kaara nekk na lëhum ñeel leen lëhum gi dellu ci maaga mbindeef lay doon alxiyaratu tànneef léegi mawsuul gi am na silla ga ma kaana lahumul xiyaratu waaye amul aayit ana ban demi moo jëlu ci lesi ci maagoo amut tey suñ mawsuul dafay am aayit kon wax ji ci naxu baaxul wa yaxtaaru maa kaana lahumul xiyaratu buñ ne maagi ma foonum bii la lesi lay firi léegi maagi ana aayit bu dellu ci moom amut موتو من سيل لغين اذن جمن بوب تخلو ديوت من العائد تعايد لأن الخيارة تند خيارة مرفوع دنكو رفع بان ونم اسم كان اسم كان كان نيكن الخيارة تنف لهم يلا لهم ما يخوض الخيارة لهم مر مترا خبر كان دغس كان الخيرة لهم كان خيرة مو اسم كان لهم دي خبر والخبر خبر مو لهم فيجر لي مجان مانا ويختار دون تان مميلا الامر بير الذي بما خمي كان نكنا آه، اخيرا تان نف غلوم دين دنيا آه، دون تان لي خمي نيوم نيوم لول من واد التركيب توغل بي محال جمله من القول جو وحجي دال مانام فيدو سا يومو تو وحجي غير ci na ci firi mi day def waaye amul فإن قيل أبو يوخينا يمكن دنا جابني تصحيه ويل الوحج بأن يكون منك العائد عائد بمحزوبا دين الهدف ويكون منك التقدير نسلبا ويختار دنا تان ما أي الذي لا يخمي كان نكن لو ميلن الخيرة تان فيه كمو في ليلة لكي نجيبه ما يعني كي قال الهدف عائد أي ويختار دنا تان الأمر الذي لا يخمي كان نكن لو ميلن الخيرة تان فيه fi ixtiyaarihi ci tànn ko ah tànn bi nga xam ne ñoom mën nañ cee tànn ñun dañoo xam ne fii nii xëy dañu wax ne xaaral liy yëf suuf min waje àqal ci beneen anam. ci wàllu nax wi day yàqu. xam nga bu njëkk ba amutoon gi ñu xasaf aayit bi jaaduwul ndax ismu mawsuul kat du saa su neexee nga xasaf dafa am fu mu jaadu am fu بومو أن هذا بربي ليس ليكون من من المواد يعني بربي التي يعني قمنا يجوز لنا دغن فيها هم حظ العيد حسب عائد <laughs> فإنه هناك عيد إنما يعطف درنك عطف مجرورا بنك جري <laughs> وإذا جر سكو بن جري بن جري عيد جوجو بحرف جر بحرف تعرف جو قمنا جر <laughs> جري الموصول الموصول بمثلي تشيب الملموم ma ittihaadil maana ànd ak bennoo maana ko ayit balaa ñu koo jar balaa ñu koo mën a xasaf ñu jëree ko xas ñu jëree ko xaraf boo xam ne moom lañ jëree mawsuul ba te maanaa bi ñu jëree ayit bi xaraf boo xam ne même xaraf boobu lañ jëree ismu mawsuul bi te ñoom ñaar seen maanaa benn ni ki yàkkul dana lekk min maa ci li nga xam ne taakuluna da ngeen lekk minhu ci moom min maa taakuluna minhu waaye sëbu dana naan min maa ci laa xam ne tashrabuuna da ngeen naan mënul ci moom xam nga maa gi googu xasal nañ ko fii waaye sëbu maa tashrabuuna rek la wax waaye min hu googu aa aayit googu di dellu ci maa la ko jar min la moom moo jar mawsuul bi te boo ko xasabee maanaam bi du yàq waaye sëbu dana naan min maa tashrabuuna ci li ngeen naan boo waxee min hu tamit ak min maa tashrabuuna benn la maanaam benn waaye si la bu dana naan min maa tase wala ca la naan min hu tamit loolu lay firi min maa ci nga xam ne tase wala naan yéen min hu ci loolu xam nga maanaam benn la te mawsuul bi ak ayib bi ñoo bokk même xaraf bu leen jar su boobaa dagan na nga xasaf ayib ah, bi ak xaraf bu ko jege comme fii waaye ¿eh? bu yaxtaaru maakaan loo mën xéeratu fii gi rek ayit bi rek nga jëf si ko fa kon su boobaa foofu wëriñ ko fa kon moom dafay jàng daal naaw su nekk nii dafay dafay dindi wax jëlee yàqu kam yàqu waaye wax jëlee naq day firi gim naq day firi rek wana na ne baaxul wana na gi maanaam yeneen nen di mooy walaa yus dëggan ak ñu xaal wax jaa ani dikkal na ma allazi ki nga xam ne maratu romb naa ko te maratu bii rek pour lazi gi am ci moom maanaam demin guddeel ci moom waaye jaa ni lazi maraltu nga afab bii hmm. parce que jaroo lazi ak xaraf yi nga jëre bii gi nekk benn wara ay tu gis naa allazi gi nga xam ne raxibtu xemam naa ko duñ ko wax hmm. ci lazi wala raxibtu anhu mooy ci mawsul du su la neexee nga fekk nga jar aayit googu xaraf woo xam ne ni moom nga jëlee mawsuul bi te seen ñaari maanaay benn la mm-hmm. asaani ñaare ba àndoon ne am baam la urida buñ namoon haasal maanaa bi la maanaa sax mm-hmm. bu fekkoon da ngaa bëgg wax ne kaana loo mun fii su boobaa xeeratu doo ko mën a doo ko mën a rafaate mm-hmm. koy nasab dana nasab al xeera xeera وصغر أن يصحل الفعل سلة فعل سلة بدمير سدمير يعود جيدل على الموصول سموصول فنون ربا ما كان هو غير ويختار ما نقى من كان يكن هو لولو عين الخيرة دي جمي تانف لهم جل غرفة خيرة دي خبر كان مؤمن حسب مرام تاركو أي ويختار ما كان الخيرة لهم نطلب ما ويختار ما نقى من كان يكن هو ay na xiyaate bi jëmmi tànneef la xanaa mooy yàlla tànn la gaa yi tànn bu bëggee war yàlla waxtaanu maakaan la ma xëyratu mu tànn la ngeen tànn su boobaa pour maanaa bi jub ah da da wax ne waxtaanu maakaan la mul ma nga xam ne kaana nekk na lewum ñee leen al xëyratu tànneef fii law mu nekk xabar ba fii lu mu doon maanaam du du jub daal su boobaa da ngay wuutal kaana gi ismu dégg nga wa yaxtaaru maa kaana la nga kaana nekk na woo loolu xeerata ga nekk na fa ma fool kii ga kii ga xabar ba kaana nekk na woo moom aynal xeerata yëmi tànneef loom nekk jaarati ma kii ga dégg nga su ko defee loolu moo doon baax moo tax mu ne wa suuxale dañuy soxlaal fenlu sillati fenlu sillati bi demiri ci demir yamut buy jalal mawsul ci mawsul fakkaanoo dafa mel mu yàqul leen wa yaxtaar dana tànn maanaa xam ne kaal nekk loolu ñëwal leen alxeerata tànneef ay kaal nekk na huwa loolu alxeerata tànneef lahum di leen xaalte kaw xeerat lahum dara ma diko mën naa nekk xaalte bi ay ëllëg yi di nga xam ne kaal nekk na huwa moom ay nal xiirati di jëmmi tànneef la moom ñenn mu ne waaw daal bi lii la muy xalaat jàngut bii ci mu ahadum kenn al mukk amul kenn ku jàng lii hmm. waxtaan maakaana lawmul xeerata amul kuñ ko jàng ñu bëgg lii rek moo ko mën a joxe hmm. Hmm? lii rek nga ma def pour maanaam bu jub waaw loolu waxtaan maanaam xam nekk na lu nekk alxeer tànneef loolu ñeel leen fii ci moom Hmm. maanaam du leer nii da ngay mere pour maanaam bi leer te boo defee nii nasab xéeral te amul kenn ku ko ku ko nasab maa ànd waa nag moom kaan nekkoon wajul wax ji alaada taqdir ci bële nattale wax ji pour mu jub boobu nattale ko nii ma la wax mm-hmm. bu dul lee lee ay wax yu rank loola yu kenn xamul noo koy firi mm-hmm. nii rek nga ko maanee pour mën koo firi mm-hmm. mooy yàlla dana tànn li nga xam ne nii dégg nga ñoom moom lañ moom ñoom moom lañ tànn mhm. su ko defee fii dafa nekk di lay mhm. di wane wax ji dëgg-dëgg mooy war a bu ko yaxluqu maa yashaa wa yaxtaaru yàlla dana bind lu ko neex tànn lu ko neex foofu nga yem su ko defee nga rek si maa kaana lahumul xeyratu nit ñi tànn dara nee loolu moo jub yeneen taawilaat yi ci nit ñi taawil nag jël maa gi ko def ma faroon bi ah boobaa njumte lay mën a andi mhm. njumte gi benn maa ngi nga def ko mafoonum bi mooy mm-hmm. waxtaaru maa kaana lahumul xiyara mm-hmm. su boobaa ñu ne ismu mawsul ñu amul aayit mm-hmm. bu fekkee dañ ko naroon seen aayit mu ne maanaam bi dëgg mooy ka waxtaaru maa kaana huwa aynal xiyarati lahum su boobaa mm, dégg nga da ngay nasab xiyarata bi te loo amul benn jàngkar bu ko jàng dégg nga kon su ko defee waxtaaru maa kaana lahumul xiyaratu mooy axtaaru ngay taxaw ne maa kaana yawmal qiyaamati firee ko dàq ne ñoom tànnuñ pour wax ji mën a jóg bu ko defee mu war a continuer dañuy indi ay yeneen ajjila yi yàlla dafa dàqal mbindeef yi tànn kon du leen saxal tànn ci laaya ji ji boo ko firee da ngay saxal mbindeef yi tànn te yàlla dafa leen ko dàqal in uriidu illal islaaha ma stata'tu wa maa tawfiiqi illaa billaah alayhi tawakkaltu wa ilayhi wa rahmatullaahi